waaw waaye mag dajale woon na mbooloo ba ñëw mu tàmbalee waxtaan ñu ne lii la fi doon wax daaw rek mu ne waaw waaw ndax daaw daaw ba ren bàyyiwu leen dama leen doon tere daa siiw lool ñu ne weeru rajab li muy bokk ci weer yi yi ñu war yi nga xam ne sopp nañ ko ko màng lépp waxtaanewuñ lool waxtaan wuñ màng ko ci koor woor ko njariñ la ca nekk waxtaani wuñ woor ca ñetti fan wala woor ca benn bis la muy jariñ waxtaani wuñ fanaan la muy jariñ waxtaani wuñ ca yendoo jàng alxuraan li muy jariñ déedéet waaye dañ cee siiwal ne ku ca lekk naat ak naat ku ko ca am rey ko lekk ko ren boolewaat nañ ci boole ko suratul waaqia bind suratul waaqia raxas ndox ma togge ko naat ba lekk ko dangay naat ba faw waaw kañ la yàlla tàmbalee tële na ma yàlla jégal ci baat bi ba naataange du ko mën a indi lu dul rajab tey tële na ko ci bindeefam yépp waaye ci naat la koy mane par at loolu mel ni xel sax waru ko nangu ana loo xam ne naat da koy man te ganaar du ko du ko man xëy na wala ganaar du ko man waaye lu tax ñu tànn ci naat mbaadu dañuy bëgg a delloo nit ñi ci jaamu xiram mbaadu daa am koo xam ne dañ koy dangay ngay rey nangami naat am nangam ak nangam mu mu xiital ci nit ñu reyal ko ko mu fexe bañ rey ko moom ci aw làmmiñam loolu wuti nag bataaxal Sëriñ Tuubaa bi loolu ci rajam yàlla tëlewut benn waxtu bu muy mën a naatal nit ki xanaa kon ku ci rey am xar dañ koy xaaraan ba faw te xar ku ko ray lu raja bit amna ño na buñ ko yegge dem xaraati ko xana ku ci def nangam aw fas des na ko fasal nangam ak nangam ak nangam bu fekke ginaas lañ ci bëgg jëfëndiko naat ku ko ray naat naat jël ci loolu lu mata maytu ci ab julit la rawatina ab taalibe rawatina ab murid bo xamne seigne touba da ko bind bataxal ci raja mu war ca wut ngeeneeli ci suñu yëneent bi sallallahu alayhi sallam digge yëpp yu bari la ginnaaw dugg nañ ci waré ba noppi wër woor ko lépp wess na moom digge nañ lu rëy rëy rëy rëy rëy ci ku wor rajab lépp ak shaabaan ak ramadan weesoo ko li ci dess ku ne mën naa suba waaye nañ ci jaxase ko suratul waqi'a te suratul waqi'a di jàngale pas-pas dëgg ku ca dem da nga ca fekk mu naan euh, yàlla mooy yëkkati mooy daaneel bu ëllëgee ñi jiitu woon ci gëm yàlla ñi jëkk gëm ñoo cay topp ñooy jiitu ña ca topp topp ña ca topp topp ca ñii lañuy lii la ñuy am ñii laa la ñuy am jàngale na ko ci jàngale ci àjjana neexaay wa jàngale ki sawara mettewaay ba ala surul mawdunatin muttakiina alayha mutaqabiliin يطوف عليهم بالدار مخلدون